ñuy wax ci journée de la femme mais je pense que loolu moo ci jiitu ndax xam nga l'engagement politique si je peux l'appeler ainsi de la femme c'est un engagement qui gère la société mais dans sa quintessence je parle de la dans la quintessence de la politique parce que nit ñi dañuy jaawale politique politicienne mais politique de développement politique sociale te loolu jigéen moo ci jiitu jigéen tey jii ngay teg ci kër doo fekk dara ci kër ga wala kër ga la fay nekk as tuut lay doon jigéen di ko defar di ko yore di ko organiser bu kër ga naat kon tey jii rôle lu jigéen ci biir société bi dafa nekk euh, rôle bu primordial te incha allah je pense que euh, ci année bii ñu nekk nii muy 2023 euh, am na xeetu jigéen bu bees bu nar a ñëw pour mën a xool enfin naka la ñuy développer sunu réew nee nañu jigéen bu defaree mu defaru waaye nee nañu jigéen bu yàqee mu yàq mm-hmm. kon nag foog naa yàq bee fi gën a am mm-hmm. boobu ba tey mm-hmm. il est temps que ñu xoolaat toogaayu jigéen et du coup je peux en profiter pour wax ci vraiment le 8 mars parce que le ren mooy euh, uh-huh. li ñuy wax pour un monde digital inclusif uh-huh. innovation et technologie pour l'égalité des sexes on a un problème avec l'égalité des sexes bu ñu ko waxee Sénégal peut-être nit ñi duñu comprendre uh -huh. mais moi je vois par là euh, euh, les mêmes responsabilités mais bien sûr mais dafa am loo xam ne moo xew te uh-huh. nekk euh, ci ci ci penc bi muy réseaux sociaux yi quand on parle du numérique c'est ça léegi jigéen ñi naka la ñuy def madame le maire pour am une bonne maîtrise de ces réseaux sociaux. parce que mhm. mënuñu gis nga thème boobu ah. Mhm. dafa nekk thème bu thème du moment. le numérique actuellement à l'ère de la mondialisation dafa nekk thème boo xam ne moo moo lënk lépp ci domaine bu ne le numérique joue son rôle. moo tax man ici au niveau de la mairie de Patte d'Oie j'ai eu à organiser deux sessions de formation sur euh, voilà les les outils du numérique pour jigéen ñi nga xamante ne. yàlla dogal na sax sorewuñu ci njàng dem ba benn moment ñu génn ci euh, euh, cursus euh, scolaire bi def formation ak yu demee noonu dañu leen ko ci dolli loon pour une plus-value dans la prise en charge yi nga xamante ni mooy interpellation wu jigéen ñi leneen li ci formation bi benn bi dañ ko def ak waa Sonatel beneen bi dañ ko def ak ay jeunes filles leaders yi nga xam ne ñoom elles ont compris elles ont saisi et elles sont en train d'accompagner leurs sœurs mm-hmm. yi nga xamante ni dañ leen war a jàppale ci loolu et je crois que ñëpp mën nañ ko constater les femmes maintenant ont l'accès Euh, euh, naka lañ koy waxee au IT euh, elles elles elles sont dans les réseaux sociaux elles sont dans dans même dans le domaine du commerce maintenant avec le e-commerce mais mm. elles font des elles font des des naka comment on appelle ça elles font des des des choses extraordinaires man personnellement par exemple man jëndatuma dara ci dem ci boutique wala dem ci ci marché wala yu demee noonu je fais tout à partir de de de, de l'internet Facebook euh, Twitter Instagram ak yu demee noonu et c'est toutes les femmes maintenant qui sont à à à à euh, au, au diapason à l'ère du numérique kon man dama naan thème bu am solo la. am na inconvénient mais ñun avantage bi foog naa jigéen ñi foofu la ñu gën a feeñee parce que duñ ci def lu ñu ci warul def et surtout danañ ko utiliser comme outil de communication outil de de de de de de marketing social mais liñ ciy def kenn mënula ko wax et moi j'ai été ébahie quand j'ai assisté à la fin de la formation mais de voir des femmes de vingt ans ñu jàngal leen nu ñuy def créer un site web ñu jàngal leen naka lañuy ñuy créer une page de publication de publicité une page de de de de, de commerce communication mais nga gis ni mu leen intéressé nga gis niñ ci sawaree ak niñ ci amee ay aptitudes moi je me dis que euh, ça parle d'abord aux femmes. ça parle, ça aux, et là encore je je voulais dire tout à l'heure le 8 mars pour moi c'est un cadre c'est un c'est un c'est un c'est une plateforme mondiale pour lancer les euh, les défis de l'heure. Le numérique en fait partie. Mm. Nous devons profiter de ce genre de, de, de célébration pour montrer aux femmes ce qui est devant elles. Pour leur donner le courage d'abord de constater parce que ku dul def identification besoin du mën a avancer constat bi moo ci jiitu constat bi mooy lan xam li ñu tardeel parce que c'est vrai hein, la femme a sa place dans la société mais la place n'a pas quand même été mise en valeur comme il fallait souvent on les matérialise on les instrumentalise mais dafa jot ñoom ñu nangu ni kenn dootu leen ko defati pour que ñu wan leen ne leen mais yoon waa ngi nii yéen tam pour ngeen génn ci et des exemples sont là il y a des femmes yi nga xam ni mais tey ji c'est des c'est des c'est des modèles à vendre et je pense que jour yu mel nii invité femmes yu mel noonu ñuy wax xale yi di dégg di jàng ñun jigéen ñi ñu ciy profiter di wax ci domaines yi nga xamante ni danañu avancer loo des domaines de développement surtout qu'actuellement tout le monde parle de de l'agriculture aussi donc moi je pense que moment yii nii c'est des moments forts pour poser des actes des actes où on parle de conscientisation des femmes où on parle de d'identification des problèmes des femmes des obstacles des femmes mais moment yoo xamante ni aussi dañ naan jigéen ñëpp nañu teg ku nekk sa loxo ci sa kaw moroom ñu jël décision ni on va changer les choses. Mm. les choses kenn du la fekk fi nga toog ñu la ko. kenn du la ko changer. da ngay toog wax ne lii la ñu jox la ko buñ la ko joxul nga dem foqati ko fa mu nekk tee ko